samay 18 ngay duggule léegi di nga nëb fii dinga fi dee kenn du la fi gis yow boobu nga xam loolu. manifestation yi. waaw semaine comme ça nga nga préparé ko. liggéey dinaa mbooloo mi ngi ak ak bi côté presse bi yëpp géré naa waaw après que communiqué ko bi ak ak yeneen gars yi waaw. waaw incha allah waaw. loolu rek sax

Problem lumagap. Ah. Kaya, pagano naman.

Oui Alors, Dieu merci. Elle est de retour. Comment tu vas, ma fille On a le son. On a le fouet. On a le fouet. Bah, tu dis Il y a Dieu merci. Tu penses qu'il y a trop de Non, mais tu penses que. yow nekkati li fi xew yëpp man maa ngi mel ni benn gumba ku tëx yëguma dara lu xew il faut que nit yi wax ma pour ma xam sama deew yaay nu demee. ma il faut que nit yi wax ma sama yaay dañ ko rey lu tax yow mënoo ma wax loolu. Aminata Aminata. ah nekkul Aminata nekkul nag tamit. fan yi moom ni ngay doxale dara ñaar ah. ñaari fan yi léegi da gëm yàlla soo gisee ma indi la fii si place bi ngay toog di jaay di di jaay ndox di ma wér maa bëgg rek nga soulager bañ a jël ay xalaat yu bëri def ko sa bopp au moins li ngay jaay bu ko xeeb bu hmm. ko xeeb chaque jour nga jaay sa ñetti sachet wala sa ñaari sachet bu ko xeeb bénéfice boo ko am yóbbu sa kër faj sa soxla du dëgg te nii ngay def baaxul yenn yi gëm yàlla la tamit te nii ngay def boo ko def xale yi di nah. ko hmm? ya, ya, gis tamit baaxul xale yaa ngi dañuy làkkuti di joy foo leen fekk jooy nañoo jooy ba seen kanam yi déformé léegi yow ngay seen yaay war leen defal war leen a delloo si nah. chaque jour ñu lay gis ngay triste loolu baaxul wala yow danga maa gën hmm? guddi yi nga toll tolloon naa guddi yi ko gën a pire te damaa jël lépp delloo ko yàlla donte la ma bëgg aw ma ko waaye nag nit da gëm yàlla mais nii ngay def moom neexu ma lii moom taxul ma lay indi ci place damaa bëgg su ma lay indee ci place bi ñuy waxtaan ah, di sottante xalaat bëgg nga fàtte lu bari sa doom yee nag say nawle lañu te léñu yow ci ah bébé écoute xam nga dafa am yo yow nga. n'est-ce pas <laughs> la stressé bugguma la situation comme police mi ngi def correctement nañ professionnels ils vont faire leur travail comme il se doit ñun ñu nekk ci activité je pense loolu croiser les bras xaar. mais dafa am ñoo xam ne yoon moo leen fi teg c'est des gens yoo xam ne lii mooy seen liggéey ñi ngi def enquête woo nañ ma fi woo beaucoup de gens pour woo nañ ko ak ñeneen ak ñeneen donc ñi ngi def seen liggéey nañ leen bàyyi seen liggéey. ana sa ndox yi dafa jeex. benn wi rek moo des. ah moo des. Ah, waaw loolu dafa neex yàlla moom waaw. Ah. bu ma amee xel dëgg yenn yi sa mu ko def. ndax maman baax nga yaatu nga wax dëgg fa neex yàlla man moom jooyatuma dara jooyatuma benn mbokk ndax yow. téye nga ma daal te naam bi ñu xamante yàggul Fatima moo tax ma xam la waaye mel na ni ma yow yaa mus da mel ni yaay sama ma ko ah. man daal maa ngi lay la ah. sant. ñii nag moom naa munta ñàkk waaye dinaa da baax rek di ma gërëm. waaye moment yi ma toll toll woon naa ci te ay nit a may delloo si ay nit may defal kon tamit su ma gisee sama uh, mbokk jullit ah natu dal ci kaw man tamit li ma war mooy delloo buum ca kaw li ma lay ñaan daal mooy damaa bëgg daal ngay soulager di xàppi bàyyi ak lépp yàlla waaw bàyyi lépp yàlla soo demee wan ni sa doom yi delloo si leen di waxtaan ak moom wax ni leen lii du dara lii du dara lii du dara waaw yàlla moom moom ay jaamam lu ko neex lay def ci jaamam lii du dara léegi seen papa dellu si waat ci jàmm loo gis rek dafa am heure ah man kay lii dama koy bëgg ci yow reetaan gi moom dama koy bëgg ci yow bëgguma la nga yemale ko ci place damaa bëgg ba ca kër ga say doom di say bëñ yii loolu laa bëgg waaw kay gis nga yow nekkee ba tey yaa ngi woon ni euh, bi nga nekkee ma ça m'étonne sama yaay man def tout mon la eh, li moom laa bëgg li ñaan moom laay ñaan mooy ko yoon def liggéeyam lépp leer loolu laa bëgg nga def ko sa bopp. amul dara mu xayma la Homem. caatu yaayam. waaw. waaye tey moom sawa wala lu lay métti. bopp ba ma sonal. ba léegi. kii dara jotu ko day tappale rek. bàyyi jàmb sa yoon nekk ci. bëgg da ngaa sonal xale ko nekk. waaw ah, caat la dafay fu caat. Hmm. kañ la commencé di métti. may diggal rek. daf may diggal. Ah. sa kon du ñu xool la xam nga yaay caat dara warul laa dal na. <laughs> nga ne dox na solo yow noppal nga génn si yow fi fi yow man ba léegi génn naa ci de dañ lay yóbbu hôpital xoolal la bopp bi ndax yow dara warul laa jot yaay sama caar waaw du dëgg ah dama wóyal moo la waaw nga bëgg moo yàlla waaw ba bëgg rek yàlla lay jàmm xale xale moo tax nga moo ko faale léegi nag xam nga noy def mm. dinaa la wayal way bu neex mais dama bëgg après nga jóg lek parce que sama naan nek est-ce que ndékki nga ah tout rek non nek d'accord dalé suma la wayé di nga nek waaw wéer ah waaw <laughs> xale bu yoro ma ci tangal sa bu rëy ngaay te khalil sama dom jeey sama chat bangé ngi ni caat dafa yombul nga dim chat ku mu naqari sama yoon nekku ci sama caat maa ngi ku mu naqari ku si sa xol jeex yaa xam hmm? bu noonu yaay sama caat yow loo naa ko fépp te am naa si yaakaar bu baax a baax a baax a ah, gis nga de affaire paa moom nii lañ nii lañ si day ñooy nii xëy rek paa bi disparaître kenn xamul fu mu dem kenn xamul fu mu ne wër nañ fu ne hôpitaux yeeg fu nekk wër nañ fa mais yàlla baax na. surtout yow Zeyna yow laa si gën a xalaat ak li nga fragile mais du courage lu yëpp dafay jaar yàlla sunu borom moom ku bëgg rek lay teg nag yëpp ay fàttaliku lay jox incha allah si papa dina ñëw fi mu ne nii damay dugg si kër gi sax moo tax ma wàññi sama voix bu mu dégg ma waaw Serif dëkk bi Dakar Serif yor naa ñëw Dakar man ah hôtel de Lozé ah wax nga dëgg man su doon man lu ma la def loolu de lo rafetul sa si gis-gis man ma nek fi dekk ma ken bu ñëw dal ci ma ah lii de moom neexuma nag ma ci dara de waaye neexuma de ah di ngeen fi ñu wa ma ngi leen xaar ah li rafetul de wa ma ngi ma ngi leen xaar amul problème ma ngi gitu. dugg ci kër bi su su bu ma ñu dégg ma dégg d'accord wa merci ciao. mooy bi neex na wala. kontaan kontaan naa asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kaa coono yëg si rek. tey eh, laa def. Fatou noo def. daaw rek. bu tey teel de. tey bi may génn tàggoo ma ah, kenn. man kay yëguma seen la bi ngay wàcc daal laay xool ne yaa ngi génn. ne si course rek yéen a ma gën a xam na ngeen def. xam fi rek ça va. ngeen ba pare. kii kii de moom dina la. waa xale. tane bi mooy metti. ah léegi ay way moo koy kii maa ngi dégg léegi way si biti bi may dugg. yi moom mooy sama caatu bopp man. fifi nag gis ci siisu moom. fifi xaar. est-ce que wayal na la yow. Ah, ma ah, man a lay wayal naa pol. xale yi ah, la. ah baax ci jàmm. baax na li nga doon doxee yàlla baax na des fois sama papa dem na te du ñëwaat. wax loolu yow tamit ma dina ñëwaat. nit réer na fi dem ay at xëy un bon jour ñëwaat dina ñëwaat am si yaakaar ñu jël lépp teg suñu loxo borom mu gérer ñu ko incha allah. mais vraiment ñu ngi remercier rek parce que weesu nga weesu nga xarit quoi vraiment parce que boobu léegi yaa ñu soutenir di ñu woo. duñu message duñu weesu nga xarit bu baax am ñu sa doomu ndaw ak sama yaay wóolute bu mu ko wóol bañ ko bu bëtu doom la koy xoolee. xew ci kër gi nag moom bari na bariwul bébé Rose parce que man sa yaay dama ko jàppee comme comme sama yaay moom tamit idem la même chose mhm. vraiment même boo xamul lépp sax li nga xamante ne jot nañ ko dund fii man ak moom mais am na loo xamante ne yëg nga ko ci donc sama yaay la woon et dama ko bëggoon torop moom tamit mu bëgg ma lool feebaram bi nag moom metti woon na aussi mais ñu ngi ko doon gérer vraiment parce que médecin bi mi ngi doon ñëw di ko faj def li war ci moom patron aussi la même chose jour bi nga xamante ne daal nee na ma euh, supp la bëggoon pour mu toggal ko ko ma toggal ko supp ba pare ñëw euh, indi supp bi jox ko mu lekk après man ma dem ci waañ bi continuer di def sama liggéey bi ma génnaatee fekk naa bool bi tuuru kudd bi dal fii ma xool ko gis ko ci état boo xamante ne tamit man sax ko waaw loolu ma madame dafa lekk ba tuur lii non hmm. Ouais. Madame Son téléphone. c'est vrai que détailler ma journée manque manqué doo ko xam sama papa et euh, moi pour man sama demu yaay bi ay feebaram mu ngi ko et tout mais mon ñëwee fii ak tournée bu ma gis mu am ay police enquête donc le euh, dafa louche en fait donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Oui, bébé. mais bon. parce que enquête bi man demna Oui, demna pour man dem enquête parce que man ak médecin bi sax nañ ko tamit mais après bon Bon, c'est normal, vu que y a que mon médecin le mujjé gis, donc c'est normal. Mais bon, en tout cas, ça m'a dit, man je ne neenal. pas. li ci am, ci je ferai de mon mieux pour que l'enquête et et trouver qui est le coupable. Ça, je te fais la promesse. D'autres me joy, d'autres joy, qu'elle nous joy parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Hein. On va faire tout pour qu'on l'aie te yow nag yaa fi nekkoon il faut que tu creuses et tout ñu réfléchir ñu waxtaan ci tu as compris mais je vais pas te fatiguer pour aujourd'hui on aura largement le temps ok. d'accord. bàyyi sa yaram. ma bàyyi sama yaram parce que saa euh, ça sax sama xarit la woon plus ma bëggoon trop mais xamu ci lu mu nekk damay ñaan yàlla rek fu mu tëdd gënal ko fi mu jógee. de irmã Sarah Fatima. Fatima, Fatima, Lida Fatima, da famia tila, monde khalila, dundum yep kumpala iya. Ça va. Naka sa ngoon? Ça va. Waa mais yow ma gis bi ma ñëwee ba léegi li may tontu si kanam dafa xaw a changé est-ce qu'il y a un problème. oui man dama bëgg nga wax gaaw man dama xaw a yàkkam ci may génn. écoute Penda su ma déplacé woon ñëw fii c'est pour essayer de me faire pardonner parce que. oui mais yow yow yow xanaa tu te rappelles pas ce qui s'est passé gis nga sa doom ni ma def ah. Penda kooku. Qu'elle comprendre Khalela, ñaar elle vient de perdre sa mère. mais c'est pas une raison c'est pas une raison de me maltraiter devant toi Tu xoolal li ma metti nag xam nga mooy tu t'es même pas dégainé tax jéem ma xool man Non la ñibbee man kese. mais tu t'imagines. je t'ai donné mon véhicule. Tu croyais yeneen nga dem ñibbi. <laughs> c'était pas suffisant. écoute yow xam ben- nga yow en fait xam nga man li ma li ma gën a

fekk si ma maa ngi toog di la xaar. kooku dinaa ko gérer yow laa wax kooku c'est un autre cas. yow laa wax waaw doy na doy na doy na doy na xam nga la jógal nga dem wax doy na ma nga dem. man ma ne nga dem damaa yàkkamti. dama war a génn. jógal. No la cola may wax ak yow man du ma wax xale di ma tontu nag sama rab da koy bañ sama rab day bañ loolu yaa ngi dégg sa yaay nga mën a nax ma yaay mënoo maa nax dëmm bu dëmmi ba ñëw boo ko bëggee dëmm takk tàq ay bari ku ñàkk jom nga yaa ngi dégg dangaa ñàkk jom yoo amoo jom yow sa papa réer ngay toog fii ñu koy jooy feeñagul yow nga ngay solu ba mel ni mel ni kuy monte ji ah est que xam nga doo génn bun kër gi doxantu ji. doo génn doo bouger mètre yow. damay doxantu ji déggoo li génnal doo génn mètre doo ko bouger doo génn génnal génnal génnal nga xool. kon dinaa la dóor ba boo ëllëgee booy bajantu ko sa yaay nga koy def waaye man dooma ko def. kacapan la kacapan caga. caga waaw. caga du mel ni caga du nuroo comme man yow eh man nga noppi. nga noppi laa wax da nga am loy wax ta nga jall ci bir wala ma wal la ni tege tege ma la gëna a ma la gëna a wëñu la gëna bandi mëno ma wal ndax do machine wa nga jall rek tay da bi échec na taw jàll seytaane kii mo bon su joge di xime xime ti melni ragal buñu saga nday waye tay da bi da bii na do génn yu xulay def koñ bi yep ñew caga be say say bi yoo xam nga ne fàq yaay fàq maan yaay wëyu yow yaay nday caa bi ci ngëes lañ lay woowee xaju xaraam Fatima, Fatima, Fatima.